c'est Madame Fatou mars tey jii moom li ma ko dundee mooy ambiance ak mbégte ndax tey jii gis naa ci biir commune Keur Moussa 36 villages yëpp ngi teew fii tey di feete 8 mars bi am naa ci mbégte trop am naa ci kontaante waaye am naa ci jàngat tamit njàngat mooy lan tey jii ñu ngi fii di fecc di muy ñuy foo di ree waaye am na suñu yenn morom yoo xam ne tey jii taluñu ko loolu dama koy mbaañaale samay discours ndax lan waroon nañoo def li ñuy def tey jii mais mënuñu ko ndax maanaam a seen ak seen élève ko waaye buñ ko tamit ñu ko waroon doxalee defaluñu ko noonu ñoo xam ne tamit yëguñu sax ne 8 mars am na kon loolu tamit dañ ko war a sóoraale suñu discours ak suñu yëngu-yëngu tey jii jigéen ñi mu takk na jigéen baax na. waaw tey jii moom li wax mooy jigéen ñi gën leen a ñaax gën a gën leen a encouragé seen engagement bu ñu jël pour seen développement gox ñu mën gën cee mën a dem ndax bu yàggee lépp loo xam ne ay jafe-jafe la woon wala nooteen la woon mën koo mën mën a atteindre seen objectif daal. tey lan ngay souhaité jigéen waaw ñu leen souhaité bonne fête de 8 mars pour une vie saine et tey loolu commune Kër Moussa waaw commune waaw commune Kër Moussa mooy di leen gërëm di leen sant di leen wax ne lii ñu def ñii ren yàlla yàlla may déwén ñu gën ñu koo mën a may ñu gën ko mën a def bi ñu xam ne tamit jigéen lépp lu luñ ci waxtaan tey jii bu subaa ñu mën koo doxal daal seen seen daal loolu mooy sama waaw monsieur le maire dañ koy sant di ko gërëm ndax bu ñu taxawee fii de am kattan am mën a wax grâce moom la ndax moo ñu fital moo ñu may jox moyen pour ñu mën a def journée bi tey ji ndax bu ñu waxtaanee mu bàyyi ñu kon loolu du ñu mën a demal suñu bopp fu ñu dem daal moom moo ñu téye ba ñu mën a dem ñu ko ñaanal di ko gërëm tamit di ko sant